yow xam nga ne suñu déggantewul rek euh, yi jamono jila la xam naa ne da ngay busy te man tamit mooy loolu mais yow maa ngi yow ba àjjana incha allahu rabi. siyaar naa la. man loolu man man la Moussa Diouf maa anniversaire longue vie beaucoup d'argent bonheur santé de fer yow sama xarit nga sama doomu ndey te nee nañ ku yëy ba yëy yàqu bu ko yëy nga yàq yëkkati yàq léeg-léeg nga gis ku mën a yëy bañ koy jaawale kuy warax yow nag dangaa mën a yëy bañ lay jaawale kuy warax li nga doon ci réew mi mu ëpp na or moo tax bis bi tey ñëpp la ko war a moo tax ma jël sama kóol di la ko souhaité di la ñaanal jàmm ak salaam lépp loo bëgg ci àdduna yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal bégg naa la Jaare Diallo mon ami mon frère